pour le peuple et par le peuple ñun dinañ la wan ne fal askan wi pour les femmes avec les femmes et moo tax tey dañuy sant yàlla ndax ñetteelu fan woo xamante ne ñu ngi teg ay acte la ci fal askan wi te nag askan wi ku ko wax rek wax nga jigéen ndax li nga ci dëxëñ danga ne askan wi nañu jëlal seen bopp pouvoir bi ki jël pouvoir bi jël nga sa sañ-sañ jël nga sa wareef jël nga sa yelleef te booy xool ci domaine yépp dafa am yoo xamante ne jigéen na ko moomal boppam am yoo xamante ne jigéen daf ko bokk góor ñeeg gone yi kon boo ne fal askan wi kay ñun gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax a baax a baax kàddu yi du gudd Wolof Njaay day wax na seetu bu tojee lu ca waay for rek diñ ci gis sa bopp waaye lépp ñépp nag lu ne ku ne ngi ci waaye na nga xam ne fal askan wi suñu lépp a ngi ci di la ñaanal wér ak wér la ak taxawaay bu mat sëkk yàlla na la ko yàlla defal nga yàgg ñoo jiite di soññ sama moromu jigéen ñi nag ndax tey jii dañu ne woon nañu tànn rek quelques femmes ñu ñëw ñu ak quelques góor quelques leaders ñu ñëw jeunes yaa nga nee ca ginnaaw ñu ñëw def lancement vente de carte kon suñuy lancé carte lu toll nit euh, teew fi président kon am na war nañoo rafet njort mais soññ jigéen ñi nag rekk bu ngeen demee ku ci nekk na am pas-pasu au moins adhéré loolu lu mu tuuti tuuti téeméeri jigéen ñu mel ni moom te gëm naa ne mën ngeen ko beneen bi ci des fan askan wi li mu innové dafa ne ci socio professionnel yëpp danañ fa teew kon soo xoolee femme commerçante yaa ngi nii te den liggéey liggéey boobu ci biir femme commerçante yi femme couturière yaa ngi fi den ko liggéey femmes yi ci domaine bu ci nekk di leen fexe ba organiser wu ñun en tant que jigéen dama ko wax tey la kont dama ko naan dañ duñ leen bàyyi fan askan wi de ñun dañuy jóg dès maintenant dugg ci biir mbooloo mi ci suñuy moromu jigéen organiser wu fas yéene koo téyeeg suñu fukki loxo kon maa ngi leen di soññ bu ngeen demee ci biir koñ yi na ngeen fexe ba liggéey bu ngeen musaan di liggéey nag biyee ci ëpp solo liggéey bu ngeen musaan di liggéey rek. fal askan wi moo ko ëpp solo ndax la mu dëxëñ a tax ak lim ñu delloo kon président wax ji du gudd dama lay bàyyee kàddu gi di ñaan yàlla ñetti fan yi nga xamante ne teg nañ ko ñetti bës yi nga xamante ne firndeel na doxinu fal askan wi yàlla na ci suñu borom sukkandiku ba fal askan bi ba faw ba faaw ba faaw jërëjëf